sukkandu bi le loi ñan ñoo si njëriñu. projet de loi soxal amnistie euh, commission de loi bu assemblée nationale euh, daal dina koy adopté wante nag ni Thierno Alassane Sall boobu projet nag naqari ñu bari la daal di def rawatina ñiy xeex euh, ngir àq ak yelleef doomu aadama ñu bañ koo salfaañi Seydi sama bu Amnesty International jàpp nii rek. kilifay Sénégal waru ñoo jëfandikoo loi bile ngir bëgg a fàtte ñaawteef yi ñu def fi ci réew mi loolee du yoon. kuréel bi ëmb ñiy xeex ak ak yelleef doomu aadama fii ci Sénégal ñoom nag naqarlu boobu lay dogal la ñu daal di def ndaxte jàpp nañ ñi ne fourage daal di sàndi li fi jotoon a xew 2021 ba léegi loolu jaarul yoon. ñun moom mosuñu ànd ci loi amnistie bi. Euh, amnistie nag euh, du bon waaye loi bi nga xam ne moom lañ dégg nag jàpp nañ ne euh, ni ñu ko bëggee defee daal du lu rafet. ñaar fukki nit ñu ci daal di ñàkk seen bakkan ñu ñu teg loxo te ñu bari jàpp ni jaarul yoon candidat yi ñuy delloo seen éligibilité maanaam ñu daal di bokkaat ci langue bi loolee lépp sànni xob bi nga xamante ni député yi dañ koy amal ëllëg ci lañ ko daal di sof. organisation yu fare ci société civile bi nag euh, di ñaax ñi fare ci assemblée nationale euh, ba ñu bañ a voté boobu le projet de loi. di ko voté ah ñu jàpp rek ne gis ni régime bi jóge ba beneen régime ñëw fi euh, bu boobaa dinañ mën a attaqué loi bi jëm ko abrogé parce que jàpp nañ ne balaa ngay def. et boobu le projet de loi bu président de la république Macky Sall nag mu nara a di amali wax lu mu tuut tuut ba élection yi daal di jàll.